Papa Ndiaye ay jasneer ay borode jasneer bu ruus ndaysaan ay borode vert vert man am na solo palmaan a nga ne Ndiaye ay palmaan Papa Ndiaye ay palmaan ay palmaan palmaan yaa ngi reefan jasneer yi borode autrice yi waaye lii moo neex waay Papa Ndiaye eh Ndiaye palman yaa ngi nii y a beaucoup de palman ici à Samel daan na ko eh moom mu ngay fayu di waa kii moom day fontu de Papa Ndiaye daan ko ba pare tim di ko dóor doy na waar waa deux troisième combat Ada Fass ak Ndiaye Tine ñu ngay xeex Ada Fass droite Ndiaye Tine 2 gauche e fii ci Refane Ndiaye Tine daw na jëlee Ada takk na ko fu mu jëm ak moom ñu nga ca buum ya ca buum ya ca xabal ca xabal loolu jàllul ñëwaat leen ci biir Ndiaye Tine moo féete gauche Ada Fass droite mu ngay tikki takkaay joxe mu ngay sànni takkaay ya ngay dindi la mu takkoon di ko joxe Ndiaye xeex ee Ndiaye Tine de ñu nga ca de mbaa duñ ci dóor nit mu daanu mbaa duñ ci dóor nit mu daanu xeex bi ci kaw ñaari njool lañu daw na jël ko Ndiaye Tinde jël na Ada da koy yëkkati buddi walla lan roof na ko tànk xattar bi wala lan dawal tuur wër ndombo bés trois appuis mu ngi koy dóor Ndiaye Tinde ngay gaañ Ada Fass oh Ndiaye Tinde bi wala dëj toog na daanu na waaye it Papa Ndiaye dóor nañu Ada ba mu tëdd toogal boppam. Ndiaye Tinde xool Ada Fass oh ñu ngi koy yëkkati Ada Fass numéro 2 dóor nañ ko ba mu tëjul boppam. waaw quatrième combat de la soirée Papa Ndiaye Galaxy droite Ahmed Boultouf gauche Ahmed Boultouf ngeen jàkkaar lool moo njool moo saw waaw làmb moom lu neex waaye def daa mel ni jël suuf di ko sànni sa adversaire waaye li TV moom làmbaray top waaw ñun moom fu mu nekk lu mu xër ko rek danañu jéem a suñu ak pour ko internet yi koy seetaan ndax nag mbaam gàtt na Papa Ndiaye waaye ci jur gi la bokk xoolal kii arbitre soufflé na mën a day jat te nga dem bëre ji waa léegi nee nga day jeex jeexal ko ñu xool Galaxy moo ne ay jeex mooy dox ci kaw Amet bul tuf ba xam fu ñuy mujje jege ngeen buum yi de mu ngi doxaat ci kaw moom Galax bul foo jëm taxawal dóor gauche wala droite Galaxy daa mel dafa bëgg dem de dugal nañ ko droite Galaxy jël na droite xeex nañu eh Galaxy dóor na Galaxy ñu fàttali na xale ñoo ko tëgg tey fii ci Réfane Samel Ndour association des jeunes de Samel daw na jël ko rappel ko daan na ko ba fay lamp ya daan na ko ba yàq lamp ya waaw waaw daan nañ la ba lakk lamp ya waaye Galaxy demal yow est-ce que Galaxy nga quatrième combat Papa Ndiaye Robina Mbedd à gauche Ndiakhoum ñu ngay xeex Robina Mbedd bëri coow la def njaaxum ñime coow Ndiakhoum a ngi dóor Ndiakhoum a ngi dóor Robina Mbedd robina mbedd ee eh, caxabal njaaxum dindi kottum ginnaaw sax la woon njaxum da ko bëgg a buddi songule dóor ci suuf doole waaw doole dalaa bu doole njaaxum daan na robina mbedd xoolal robina mbedd waaye njaay xam nga robina mbedd njaaxum nag ñime coow kon njaaxum duma na ko songule na ko daan na ko robina mbedd jógal ñibbi o oh, njaaxum a yëkkati daw na yaram njaay waa ndeysaan cinquième combat man de lii gëj naa koo gis Papa Ndiaye arbitre suuf le ngay laajaat butéel moom Sa waaye ndax niroo naag Sa Thiès ma ca Ndakaaru doomi duubales jàppante jàppante bébé Cheikh Mbaye ngay wër fu mu jàpp loxo gauche ba jàpp na Sa Thiès di dugal uppercut suru xel arbitre mais arbitre bi lu muy def nii moom waa lu xew eh Ardo Papa Ndiaye Ardo day faj reefan am na Ardo Réfane am na ardo Papa Ndiaye Réfane am na ardo Papa Ndiaye Bébé Cheikh Mbaye Sa Thiès Bébé Cheikh Mbaye dem na docteur ñaari yoon faju il faut mu wari bëre il faut nga wari bëre fàq na ko daan na ko arbitre daan na ko bu yàgg fàq na ko dugal ko da koo poli daan ko daan na ko daar bit wala loo wax arbitre lu xew combat bi metti na faqat na ko faqataat na raam karbit gaa dappi waay lamb ji jeex na arbit gaa dappi waay gaa dappi jël la arbit gaa dappi jël arbit waay ah waay gaa dappi jël la Bébé Cheikh daan na ñagas la grand champion jaar naa la waaw Babacar maa ngi lay fay maa ngi tabaski gi ñagas naka mu. waaw tabaski bi maa ngi baalu ñëpp baax di ñaan ñëpp baal maax waaw maa ngi baal baax a baax a baax. mais ñagas léegi mbër la wala booy disco la wala quest a. waaw xam nga nag bu nu bëriwul dañuy wane suñu bopp quoi bu nu bëriwul dañuy wane suñu bopp dañuy wane ne ñu mbëri waaw du ñuy dof quoi bu nu àggee ñu xam ne mbëri ay dof lan waaye bu nekkee ci biti ñu war a xam ne nit mbëri ay nit lañu. lan lan moo leen di reefan tey. waaw reefan nag ma fi gën a indi abada la quoi ak tëgg làmb ci sama gaan la ñu évité ma ma ñëw reefan waaw seetaan si quoi seetaan si lamb ji. saison bi ren bi passé ñu génn defe naa benn combat am benn défaite. non ñaari combat laa ñaari combat. ñaata victoire ci saison bi passé. waa damaa daan bébé bis mi Youssou Ndour daan ma Youssou Ndour waaw. foo jëm saison prochaine looy waajal ñu ngi lay dox wala. waaw saison bi nag damay waaj lu rëy. koo bëgg a bëreel. saison bi waaw xam naa dinaa la ko wax bu demee Dakar nag fi mu toll damay pare quoi rek ñu xam ne ñu defee naka leen di pare. waaw maa ngi pare bu baax a baax a baax maa kii nag mooy Dieye Ndour moo fi représenté ki ñu tudde drapeau bi bokk parti réew mi bu Idrissa Seck ah Dieye wala. Dieye Ndour la waaw. yow yaa représenté ki ñu tudde drapeau bi. Ibra Ndour waaw. Ibra Ndour depuis Italie. waaw waaw waaw. bokk parti réew mi bu Idrissa Seck. parti réew mi waaw. nga dëkk ci dëkk bi ñu tudde leen làmb loolu lu ngeen ci yëg. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Réfane rawatina waa Samel nduur bon di nuyu sama rakk yi nga xamante ne nii ñoo organiser làmb ji di nuyu sama jigéen yu baax ji sama jéeg ji ku ci mel ni Bousso Ngom ak Astu Diop ak ñoom Astu Wad ak Astu Sarr ñoom Aram saar faat Faye ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziare ñoom ñëpp ci mel ni Ndeye Cissé ak Mame Mor Ndour jàpp nañ ci bés bi bon. tey sama yaram dafa daw kontaan naa am naa lu ma am naa mbégte trop ndax di ma ñëwee ñu tudde ñu drapeau bi ñu bokk ci parti réew mi Idrissa Seck tudde ko Ibrahima Ndour di sama grand frère vraiment kontaan naa kontaan naa trop trop trop trop trop ñun nag amuñu lu dul réew mi parti réew mi moo ñu tax a jóg Idrissa Seck Idrissa Seck la ñu gëm te moo ñu moom lañuy liggéeyal le drapeau bi mën naa ne tey depuis tabaski ba léegi événement yi bëri na trop. Euh, bés yi bëri na mais nag dañu koy muñ rek te xam ne ay politiciens lañu. <laughs> eh Sombeeg B52 eh Sombeeg B52 jeex na sombi daan nañ la sombi B52 daan na la xaw ma sombi nuñ koy tuddee Papa Ndiaye sombi lekk lañ ci xam yow itam mbër day wut turu mbër sombi bilaay sombi def nga kaat appi wala arbitre lu mu wax sombi daanoo gulem eh waa lu xew arbitre. arbitre nee na sombi daanuwul de xaw ma eh sombi door na góos B52 fayu sombi bu dagg sombi sombi sombi daan na B52 eh sombi daan na B52 sombi daan na B52 eh Papa ba tey Papa Ndiaye yaa ngi reefan rek saamel ndu Modou Séréer Eumeu Sène Eumeu Sène a wane ginnaaw Modou Séréer lañ jàkkaar lool Eumeu Sène ci reefan moo yor ngembulu vert li Modou Séréer lañ jàkkaar lool ñu ngi xeex waaw mais Modou Séréer moom fas gi mu sex yàbbiwu ko mu ngi koy bëre waale man de lamb ji daa mel ni règlement bëriwu fi fii moom bu fi règlement itam njaay du lool mbëri duñu takk protestant da ngay seex dara di ko bëree waale xool fas gi mu yor eh korose góos laawu góos ba dal na Eumeu Sène dugalaat na góos Eumeu Sène mu ngi def ay mouvement Eumeu seen moo séréer góos Eumeu Sène nag moom boo xoolee takkul dara moom xam naa daa ngembu rek ñëw Eumeu seen mbër war nay takk dara day rafetal mbër wala da ngaa nuru sa turandoo boog Eumeu mu mag ma la muy takk bariwul la grand champion ñu koy félicité actuel roi des arènes fàq mu bañ ñu fàttali ne grand combat bi jaasi pël la ak dégg daaj eh droite yaa ngay dal waaye yéen Eumeu Sène mi droite am bi saf de Eumeu Sène a ngi dóori droite waaye Moussi da koy jaay doole dina la wër da lay lu mu koy def yëkkati wër ndomba dóor daan na la kat appi na la bu yàgg mu ngay daw hee Eumeu daw na laa la illallah njaay hee waaye yéen moo séréer mi weex na xat de moo doo ngay wër di yooxu xool ko ee eh waay ndaw Papa Njaay yamale ko fa Njaay drapeau taximaan yaa ngongu ñàkkar bu Tuubaa ngeen jàkkaar lool booy bawol moo leen won ginnaaw bu bawol mbooloo ñoom tafa leere ko ndek njaay tin booy bawal ñoom bawal bawal yee ko ndi waaye jàpp ne lépp bawal bawal la ki muy tubaatul la jóge ñàkkar moo gàtt xeex nañu ee eh, ñàkkar dugg na ca garde ga njool ak ndaama duñu xeex ñàkkar wóorul mbaa duñ la dóor nga daanu ee eh, dóor mu daanu laa ilaaha illa ee eh, dóor na ko mu daanu xalaatoon naa ko génn na ko war na ko dalay daan déedéet amagul jël amagul jël amagul de eh bëre leen jël amagul de waaw way Papa Ndiaye wax naa la ko eh Ndiaye waaye ñàkkar ndaama la waaw daw jëli génn nañ ko ñàkkar tey dugg nga rapidum Samba Lawbe odu Lamine Samba ñàkkar nga problème eh ñàkkar kenn ëpp la problème Papa Ndiaye ñàkkar ciy jafe-jafe waaye ñàkkar kañ ngay génn ci lii ñàkkar liñ lay demetti na tuur na ko dawal waaye sotteegul de ay doole waaye bëree métti waay turxal waaye lii saf na di cey waay bëre waay ee arbitre ardo ardo day faj ardo koy woo ardo bu refan day woote ardo ne na ko kaay ma faj la waaw waaw Ardo am na caw yoon pappanjaay Ndiaye ba pël heure nawet loo taw na jël ko mu génne ko booy bawol da doon jëw ci jël eh yokku sol foofu baaxul de moytul ñàkkar moytul xeex bi xeex bi ci kaw wóorut ci yow droite boobu dalee du baax ñàkkar loolu wóorul ñàkkar a ngay fayu eh ñàkkar ak booy bawal ñàkkar ab jëngu man la ñàkkar a ngay jëngu wax na dëgg waaw waaw ku bëgg a dee wequ waay lii metti na waay lii metti na ci reefan ci Saamel Ndour daw na jël ko arbit lu xew atte lu xew ardo oh la la delloo nañ ko ca booy bawol la muy def nii daw na jëli ko plaqué mbot takk nañ la ñàkkar dañ lay daan sukkër bi eh ñàkkar dañ lay dóor ci suuf ñàkkar wër nañ la ndombo oh. waaye lii daw na yaram ñàkkar daanul arbitre ñàkkar daanul waaye lii metti na di é waaye lii doy na yey doy na doy na doy na waay arbitre jeex na waaye lii jeex na waay arbit lii jeex na é arbitre arbitre lii jeex na Papa Ndiaye tey laa waaru man tey la waaru ñàkkar day ku amu fit la xam naa ne ñàkkar daal ab defantekat la ah ñàkkar dëgër na ñàkkar gàtt na waaye dëgër na ñàkkar du ñeexum ñebe de gis nga ñàkkar gis nga ñàkkar plaqué loolu baaxul bu ko yootu plaqué fo nga plaqué daa sori lool waay laa ilaaha illallaah dalay daan dala ëpp doole waay booy bawal waay Ndiaye Tine jël si ko Tapha Leer numéro 1 à droite numéro 2 à gauche Leer maa ngi lay ziar Babacar maa ngi lay ziar la bëggee tey yaa ngi sa dëkk de Réfane ànd sama tamu dooma ah, Tapha Leer numéro 2 ànd ko bon bërësi di baalu ak waa Lutte TV fii den ak di leen ñaanal ñu yàgg fii xam nga di leen bëggee ñoom ñëpp cat ba cat di leen bëgg waa kër bëre na tey maa ngi dalal fii ci di la wax bienvenue à Réfane sa sa turandoo defe naa ki muy bëreel dañ na de ñëwul dafa daw fii moom xoolal day leer rek jàpp daan xool ko xool ko bu baax xool ko bu baax kii champion la barke Serigne Touba xoolal après day ñëw arène jàngal arène bi ban degré la nekk moom ak rib barjon mook si barjon waaw mais yow foo jëm bi nga jógee ci booy ñàgg kenn gisaatu la looy waajal déwén nu ngi bu baax ci kan la xel mi nekk lees deux na may sax si bëre lees deux na may sax si man lees deux man la yow itam tafaale may sax yow xoolal man ay champion laa bëral barke Serigne Touba ay champion ku bëre cartouche Sylvain Junior ah Mambala Gérard Fass ah jëf jël booy Mamaya ku bëre ak ñoom sama waay kenn wutu la ba ci lamb Cheikh ma dëgg gaaraan may booyee ñu bu sens ñu xam nga ah pourquoi pas hmm? wala Ama Baldé bu Thiès ma combat la Ama nañu ñu bëre jeune la may jeune nañu ñu bëre wala ay xam nga ay booyu parcelle bi lay Pitago combat la Yanda combat la. loolu leer yow ñaata combat nga am ko ci làmb ji. man am na trois combats. ñaata victoire. Ah, am na trois victoire bi yeggoon na roon a quatre quoi moom mooy. Ah. waaye yee beneen yoon nag incha allah. ci kàttan yàlla waaw jàpp na mbokk yi suivre Lutte TV com comme ni ngeen ko xamee nag tey dañu ñëwoon Réfane Samel Ndour association des jeunes de Samel Ndour ñoo organisé woon làmb grand combat bi dégg daaj la ak jaasipal Seynou maa lay ziar. waaw Babacar maa ngi lay delloo ziar di la nuyu lu bare bëri di nuyu waa Réfane gépp di nuyu waa association bi ñoom ñëpp ñoo leen di nuyu di leen ziar lu bare bëri. ngeen nekk ay xale tey nekk ay xale ànd pour développer seen quartier ci Réfane tëgg ay làmb lan moo tax ngeen choisir tëgg làmb. waaw làmb yoo xam ne facteur de développement la loolu moo tax ñu dugg si ak jàppale jeunes yi nga xam ne ñoo nekk Réfane di entraîner pour lépp ngir bëgg làmb rek ñu bëgg see dugg pour jàppale leen quoi loolu rek moo tax ñu dugg si làmb ak jàppale sunu waa gox yëpp pour développer Réfane parce que école bi ñu nekk nii ñun fi lañ jànge fi lañ amee lépp pour bu bu fi nekkee daal xam nga lu bëree bëri pour pour defar suñu gox rek mooy tax a jóg nii. mën nañu kon mën nañ leen xaaraat daal ngeen continuer di tëgg làmb wala association bi reefar rek la yem wala mën na dem ba Dakar di tëgg làmb waaw ñaanu yàlla nag mu yem fii parce que dañoo ñaan yàlla dem stade comme ni ko gars yi defee parce que ku si gis ku mel ni Père Bada John parce que ku ñeme ku ne maanaam dañu laa dey quoi moom moo fi moom parce que lii lépp si moom lañ ko gisee ba tey jii ñu am fi tu tegalam mais ñaanu yàlla yem fii nag dañoo ñaan yàlla dem stade continuer teg ay édition édition te chaque at moom na ngeen ñu xaar comme ni lu ngeen di wax waa luttetv.com. waaw kontaan nañ ci ñoom trop kontaan nañ si ñoom trop parce que def nañu li leen war seen chute bi doon chute yi nga xamante ne nii maanaam mooy gën a kawe chute yi parce que kontaan nañ ci yow aussi yow Babacar kontaan nañ ci yow sa caméraman yi yéen ñëpp kontaan nañ ñoom Papa Ndiaye ñoom Lamine gaa yëpp bég nañ ci ñoom ak waa groupe bi nag amuñu seen fay parce que mu nañu mbooloo mooy doole xëy na nag man maa si gën a nekk xale mais li tax ñu jiital ma moom xëy na ñoom ñoo ko xam sant ñoom jage yin ñoom góor gi xaadim yin gars yi yëpp béggee nañ leen mooy loolu ak ñoom wuli yin ak sécurité bi fi nekk di gërëm amateur yeeg supporters yi mbër yeeg ñëpp ñu leen di béggee jaajëf waay kontaan ci yéen ñoo ngi refan fu ñuy wax saamel nduur jaasi pël ak dégg daaj jaasi pël wane ginnaaw grand combat ba ngongu dégg daa ngeen jàkkaar lool drapeau bi nag kiñ ko tuddee jeune la dëkk fii ci Saamel nduur waaye nag Italie bokk ci parti réew mi bu Idrissa moom la jeune yi tuddee drapeau bi tey moom dégg daaj jaasi pël dox si ko mu dooraat une deux jaasi pël pied gauche dégg daaj pied gauche jaasi pël wane ginnaaw yor ngeen doog dugal na gauche jaasi pël war naa ñaw de Papa Ndiaye jaasi pël jaasey pël rek si gor bu dee xam nga ku dégg daaj moom loo def war nañ ko apprécier xaw ma nag dina def lu ñu apprécier moom dégg daaj jël nañ dégg daaj jaasi pël jël na ko ba bañ jaasi pël bettoon na ko laa waaye dégg daaj bañ na loola de lànk naaka ndaare dafa daw tibb tànk ba mu dóor ko kopp tànk ba dañ ñu daw solante di sërxalante hyperkit jàppantey ngemb laa ilaaha illallaah ci reefan ci saamel nduur may nuyu bana jon sama grand frère waaw moom fii la dëkk jonn borom banja production cay jamono tëgg na Balla Gaye numéro 2 bana jon ci bànjaa production diggante ak maam góor Diouf kenn du jon lu xew ardo da ca amu yoon ardo ngi nii toog laa ngak man ee eh, jaasey pël jaasey pël kaay ñu faj la kii jaaseem ji ñëwut Papa Ndiaye dégg daaj jaasi waaye jaasi pël waaye bada jon nuyu naa la depuis reefan jël na ko eh jaasi daan na dégg daaj laa ilaaha illallah Papa Ndiaye jaasi daw na jël dégg daaj dégg daaj tey da koo jël daan ko xool dégg daaj oh dégg daaj a ngay xam fu mu jëm xool ma jaasi jaa sippal ñëw na reefan fekk fi dégg daaj dal di ko daan jaa sippal kontaan naa seex a ngi seex artiste a ngi nii seex miin reefan seex tay da nga bari tànk reefan mais seex looy wax waa ndeysaan Babacar yow sama xarit nga yow yàlla ñu boole barke Serigne Touba Mbacké yow dama lay ñaanal sunu borom guddal sa fan wéral sa yaram ci barke Serigne Touba Babacar ngay sama xarit Babacar nuyu naa la. fay naa la Cheikh looy wax. ay waay Babacar. Babacar sama xarit nga yàlla seede na loolu. Babacar yow mi nga xam ne yaay yaay Babacar taalibi Serigne Touba Mbacke bu mag bi dundal ba say may di baawaat waa yaag waa Lutte TV adduna bi di ma seetaan Babacar man di naa la Babacar yaa fonk yaay yaa ngi liggéey yaa ngi dóor waar man de Babacar namm la man di wóolu naa laay waa ndeysaan Babacar maa ngi nuyu waa adduna bi yëpp di ñaanal sama yaay sunu borom yàggal ko fi di ñaanal sama papa sunu borom yërëm ko barki Seydina Mohamed ak bépp jullit di wax waa senegal nan ñëw jàppale ma man Cheikh à suivre dinañ waxtaan. incha allahu rabbi yaa ma gën a xam.